tv zone 7TV nak nek fi ci Mbambilor nee naa la désormais à partir d'aujourd'hui ba ngi leen promettre ay émissions yo xamanteni extraordinaires sa extraordinaire nee la comédie 100 waxtan 100 galaya bi 100 pour cent loolu yëpp dafay am nee naa la mbaboor mi sax dañ fi dafay fa am am fii ci zone 7TV ñi ko moom nag Sénégal bi yëpp ci lañ bokk waaye nag dafa am ñoo xam ne ci gën a particulier Mbambilor Gorom 1 Gorom 2 Gorom 3 Bayaax Ñagg lagrose nee naa la ba njaxiraan ñëpp ñooñ moom nee la ñoo ci gën a particulier kon nag jeune set TV yéena ko moom seen télé la man day ah désormais à partir d'aujourd'hui na ngeen ma waajal te xam ne eh moo fi am néeg de kër ngeen ma fi wutal mën a fi dijj faax jàkkaarlu ngeen di defante lu neex lay lay la la bu ko njur samba xeena eh, bu ko eh, njur jeune set TV lañu wax ñun ah waaye la bu leen ca topp li da neex naan de sax ci digg digg loolu foor na Sen TV ak kan lu lu comédien lu pour populaire lu daanaa lu pour populaire ah dégg ci dégg dégg dama ci boole musique émission le plus populaire fii ci zone 7 TV nekk fii ci Bambilor nee naa la ah, ci dégg dégg boo fi ñëwee xam ne lépp dëgg la ah ci dégg dégg ah ndaanaan ñëpp dina fi ñëw dinañ fàttaliku Naar di leen fàttali ci digg a jamono alaaji kaani sàmb di digg-digg nit ñi fàttali jamono jamono yi nga xamante ni ci digg dëgg ñoom alaaji ma a xool ku ma jàngaan ñu fi woon ñoo ñoo nekkul groupe Mabor te ñoo ñëpp dañ dekk wax fii ci zone 7 TV nee naa la da ngeen ko xaar nee ma après ku daan après après mes